internet yu sans limite TV ñu ngi leen di nuyu bu baax jërë ngeen jëf ci ànd bi saa su ne ñu ngi leen di gërëm di euh, ci ànd bi saa su ne ci seen émission jotaayu ndaanaan tey nag ñu am dalal ki nga xam ne moom mooy euh, DJ Yves borom guddi gi Yves ñu ngi leen nuyu bu baax bàyyi laat nga nekk internet yi nga xam ne ñoo lay bàyyi xel ci sans limite TV. Alburax jërëjëf maa ngi lay euh, nuyu di nuyu aussi ñi bàyyi xel actuellement ci sans limite TV. di la gërëm encore fois ci invitation bi pour la deuxième fois. Mhm. ñu war a jàkkaarloo donc maa ngi lay gërëm bu baax a baax. merci Yves alors ñu koy tàmbalee moom mooy bien avant ngeen di dem euh, Bercy. coow li bari woon na. Euh, Zénith plutôt ñu baal ma. mais Bercy moo stop. voilà <laughs> voilà très bien. après après après Zénith c'est Bercy. Bercy coow li xawoon na bari mën ngeen ñëwaat tuuti ci préparation bi naka la demee woon ak naka ngeen def ba réussir le pari. Mhm. waaw euh, xam nga Sénégal moom boo fi nekkee. di di liggéey euh, lépp loo xamante ne yaa ngi koy waajal rek il faut mu ay coow mais coow li du leen lu dul nit ñi yéene bu ñuy am parfois. Mhm. ci réussite événement moo tax ñuy am ay wax yoo xam dañ ko ciy wax te wax yooyu noonu day pousser ki nga xamante ne. déjà moom mooy organisateur bi di promoteur bi di artiste bi di ñi nga xamante ne ñoom lay àndal ci liggéey bi ñu gën am courage. Mhm. parce tey boo sumbee dara te déggoo kenn ku ne la est-ce ko réussir est-ce que di nga ko mën rek soo moytuwul boo waroon def à cent pour cent cinquante pour cent ngay def. Mhm. mais sénégalais moo bëgg est-ce que mën na daan mbër bii est-ce que mën na def li est que est-ce que est-ce que nga mën a def li nga xamante ne euh, mooy euh, sa sa jom ci li ngay def ci sa fulla mhm. nga nag comme ñii ñu ngi wax ndax mën naa ko mënuma ko no kon bàyyi ma yokk sama doole pour mën a réussir mu bëgg def mais boo nekkee xale. pour ñu grand yi bu ñu la bëggaan nax ci ci ci dara ah non booy waay booy munu ko waay ah non booy ba est que dina ko def mhm. est-ce que boobu noonu day permettre après xale bi mu gën a yokk courage pour réussir li bëgg a def donc loolu mooy li nga xamante ne amoon na tout au début déjà bi nga xamante ne jàpp nañ date bi rek li ñu wax mooy ay dóor la xam nga Sénégal dañ tàmm loolu dañuy sóob ab date amul bi date bi demee ba confirmé affiche yi génn ñu ne est-ce que dina am mhm. biñ demee ba affiche génn promotion bi commencé daw ñu ne seen promotion bi doyul. Mhm. promotion bi dañ ko yéex a def promotion bi baaxul ni ñu koy defee baaxul parce que nii parce que nale du ñu gis kenn. Mhm. bu nee ba ci jour bi ñu ne est-ce que finalement dina am. Mhm. ñu dem ba ubbi saal bi gis ni nga xamante ne noonu la Zénith mel ñu ne est-ce dina way li mu bëgg a way yëpp. ñu dem ba mu way ba pare ba jeexal ñu ne way na ba pare mais pose bi. la moo waral. <laughs> dinañ ci ñëw ñu dem ba ba ba ñibbi suñu kër yi. ñu ne non euh, est-ce du am ñu daw. <laughs> ñu dem ba nit ñu commencé ñibbisi ñu ne artiste bi la lay def foofu boobu ba léegi. Mhm. donc loolu mooy Sénégal. te Sénégal comme je di ñun suñu problème du du suñu dirigeant yi mais c'est nous-mêmes entre nous le problème du Sénégal c'est les Sénégalais. Mhm. et loolu fii la commencé depuis Grand Théâtre Salam Diallo bi mu njëkk tëgg Grand Théâtre ci la fees na ak feesul commencé ci Salam la commencé. pour mhm. rappel. après Salam Wally war fa dem ñun est mun na ko. waaye ñëw réussir ko keneen war fa dem ñu ne est-ce na ko est-ce que est-ce que est ñu dem ba Miss Grand Théâtre ñu bàyyi waxu Grand Théâtre waaye bi muy dem Bercy je me rappelle c'était comme ça aussi mënu ko du ko def ci jour bi est-ce que mën na ko feesal salle bi fees na daa wàññi place la ñu mujj wax. Mhm. donc loolu mooy Sénégal. d'accord alors gis nañu euh, euh, l'artiste en personne seet na pas mal pas mal d'artistes. ay moroomam. Mhm. wala ay papaam. Mhm. Euh, lan moo nekkoon c'est-à-dire secret bi loolu wala lan moo ko motiver woon. ba mu dem seeti ñenn ci ay artistes. c'était très naturel parce que boo nekkee xale aussi Sidy pour man moo gën a nekk xale ci musiciens yi. ci ñi nga hmm. xamante ne wax dëgg yàlla ñu ngi def ay jéego yu am solo ci musique. pour man ñoo ko mag. te bi ñu jàppee déjà li nga xamante ne moom moo di datu zénith bi Matar Diop suba teel daf ko ne. il faut nga def loo xamante mosul musul am Sénégal parce que Sénégal bu njëkk ba li ñu daan gis mooy boo organiser événement euh, ay parrain borom daraja borom xaalis nga daan affiché. Mhm. tudde naa ko tel tel ministre tudde naa ko tel borom daraja. tel mhm. président wala nangam. mataan na ko jëlal say parrain nga def ko sa papa yi nga xamante ne fii nga leen fekk. te sa pap yooyu am cër bu mat sëkk ci yow parce que fu ñu la fekk dañ lay encouragé ci sa talent ci sa lépp donc ci lañ def après parrain yi. ñu ne ko mais am na koo xamante ne si foog nga boole ko ci koo xamante nekkul Sénégal mais doomu doomu Sénégal parce que Sidiki Ly kenn mënatoo doomu Sénégal ndax teraanga bi nga xam ne defal na la ko ci biir sem bi. Mhm. mu si boole ko ci yi nga xam ne ñoom ñooy parrains yi. donc bi si lañ tànn parrains yi Wally Seck malheureusement euh, bi ñu bi ñu bi ñu ko tànnee comme parrain ba war ko yóbbul lettre ci la am décès décès yi tegloo yi. ñu ne rafetul quand même nit ci naqar. nga dem naa ko dama la bëgg parrainer événement quoi c'est même pas du ñu ñu dindiwaat. photo affiche wu Wally Seck ci pare mhm. moo tax ñu gis Baaba Maal Youssou Ndour Viviane Pape Diouf ak Sidiki mais sixième personne bi c'était Wally. waaye. Mhm. mu nekk loolu rafet naam sénégalais ñenn ñi sax ñu ngi doon wax naan euh, Sidi c'est-à-dire warul waajal ba euh, Zénith dem seeti ay moroomu artistes. bon loolu waxu waxu sénégalais la parce que pour man musique ak fi fi musique toll actuellement nii lii nii. Euh, réglé na lu bëri loo xamante ne daan na am ci musique mhm. mooy li def nii parce que boo xoolee bi mu ko tuddee ay moroomam ku ne mu pare na la wax na la dama la invité ci Zénith bi ñu bëri nee nañu kan moo ko jox xel bi mhm. parce que boobu affaire jaxasoo woon na du wax ak Ibro ah dafa am ak moom moo jeen Bass Thioung dafa jógee suba teel est-ce que Bass nii est-ce que nële est nële bi ñu toogee waxtaan suñu biir euh, entre nous ci label bi ñu ne ko même boo mënee tuddee koo xamante ne nekkul sax Sénégal la ma nga tuddee ko ko nga invité ko parce que symboliquement boo invité artiste day rëy ci moom. Mm-hmm. parce que artistes yi bu njëkk ba da nga naan gis bu nit di def grand théâtre da naan yëguma ko ah ko lan laa fay wut. moom nag mu ne ñu ne noo xaar ñu ko ñu def contraire bi. xool ñi nga xamante ne say nawle lañ yëpp ci musique bi say grand frère nga yónnee leen ay lettre d' invitation wala leen ne man dama leen di invité parce que bu njëkk ba lettre dinaan woo téléphone rek damay def grand théâtre invité la mhm. mais bii pour mu gën valeur ci lañ ne dañuy def ay affiche yónnee la ko yónnee wala lettre d' bu fekkee confirmé nga moo tax ñu doon après affiche mhm. boo gisee affiche bu génn ñu def ci confirmé mooy yónnee nañ la lettre bi. Mhm. nga xool yaa ak sa staff sa manager boo demee ba ne ah wax dëgg yàlla kat waxtaan naa sama staff d'accord nañu pour ma ñëw ci événement bi. Mhm. parce que nit aussi bu fekk artiste nga da nga am manager am staff. Mhm. buñ la woo rek nga ne waaw d'accord naa te waxtaan ak sa staff. Mhm. loolu moo taxoon yenn afficie di yéex a génn mais ku ci ne ci ñoom un mois avant jot nga sa lettre d'invitation. ñenn ñu confirmer ñenn ñu ne non bëgg nañu ñëw mais dafay fekk ñoom programme wala fekk na jëloon nañu sunu programme tel tel tel moo tax mënuñu woon euh, confirmer mais boo xoolee biñ njëkkee toog première réunion bi ñu def Radisson Matar dafa ne. dafa njëkk ne bëgg naa invité cinquante artistes yu nekk Sénégal liñ ko njëkk a mooy ñooñu fan la ñuy joué. Mhm. mu ne du problème joué bi dama bëgg Sidi moom mii mu xam ne ñi fi nekk ñëpp ay nawle lem ñu te ñii ay magam la ñii ay rakkam la ñu na leen boole ci bis bi. na ko mënul ñëw ñoom ñu yëg ne au moins Sidi def na kat boole nañu ci bis bi parce que dafa am foo xamante ne fa la jëm ci musique te fi mu bëgg dem jëm ci jëm ci musique. moom ci génération war na mën a régler yenn problème yu bëri doon am ci musique mooy ñàkk demlante bi. Mhm. te loolu bokk na ci li nga xamante ne wax dëgg yàlla feeñ na ci ci zénith bi nii. d'accord alors ñenn ci ñi nga xam ne ñoo bokk ci presse bi après dégg naa ay wax mhm. en fait zénith. Mhm. sans la presse. am na ñu dem. mais am na ñoo xam ne demuñu. mais ñu demul la majeure partie dangay dégg euh, ay wax. ñu doon invité wul leen wala dafa am lu ñu leen doon laaj mhm. leen doon laaj te joxuñu leen kook affaire yooyu noonu mhm. mën nga ñu ci leeral tuuti waaw euh, xam nga côté presse fii ci Sénégal dafa am loo xamante ne ñun parfois dañ koy fàtte mhm. c'est la presse qui doit aller ver l'information tout à fait presse waroo toog ñu ñëw di la indi euh, ci man ni ma ko xamee ci ni ma ko ni ma ko jàngee ci ci ci presse man su ma mësaan gis affice nit war a def événement damay jël numéro bi ci nekk wala ma xam artiste bi wala ma xam manager ma woo ko ne dama bëggoon ñëw bokk ci ñiy couvrir événement bi presque loolu mooy relama ah. gis lenn ne eh, mais gars yi yëg ngeen affaire bi nii conférence de presse bi fan la kan ma war konta ko kenn ko fa nekk nañ dem uti information. Mhm. donc ni nga koy defee ci wàllu politique. di ko def ci leneen mun nga ko def nañ ci wàllu musique. Mhm. mais beneen bi mooy. dafa am loo xamante ne am na te xëy na ñu bëri dafa am lu ñuy xaar gis nga ñun Sénégal. Mm. dafa am benn problème boo xam ne dañ ko am ci wàllu presse. mooy damay xaar ba mu woo ma te pourtant li tax ñu créer ay groupe des jeunes reporters ay groupe des jeunes animateurs de des animateurs des des journalistes c'est pour bu dara xewee xam nga nit ki mënul yoon numéro ñëpp. Mm-hmm. li mu mën def rek mooy xam ci kenn yónnee ko affiche bi. ne ko partagé ko sa gars yi gars yi bu leen affaire bi intéressé ab ñoom ñoo ñëw ver l' artiste wala vers le le promoteur ne ko ah, ñun kat gis nañu affiche bi euh, comment ça va se passer ñun la la ñuy def ba mën a am accréditation ñu la ñuy def ba mën a participer ci événement bi donc loolu c' est le rôle d'un journaliste. mais pratiquement comme léegi journaliste bëreetul mais ay reporter ay animateur ay présentateur la ñoo nekk ci chaîne yi nekk ci télévision yi donc xëy na dañ koy réeree mbir. Mhm. te dafa yàgg indi ay problème ba ci ay événements yoo xamante ne jàll na fi ci ci Sénégal fii nii nit organiser événement te de waaw waxuma ko man lan laa fay wut yëguma ko wala yëgaluma ko loolu. artiste mun na ko wax. Mhm. ne man artiste bi comme invité wu ma wala yëgalu ma événement am su ma fa demee lu ma fa dal maa ko teg sama bopp su ma demee yéegu ci kaw seen maa ko teg sama su ma demee aussi mu sewal maa ko teg sama bopp mais kii nga xamante ne moom dafay uti di matière boo xamante da koy ñëw diffuser ko kooku warul xaar ñu naan ko kaay defal ñu lii. Mhm. maintenant dina am loo xamante ne aussi parfois promoteur bi moom mooy xool mu ne dafa ciblé. ñoo xam ne dafa bëgg liggéeyandoo ak ñoom ci événement bi. parce que ki nga xamante ne journaliste la moom li muy def mooy. damay ne outil information après ñu diffuser parrainage mhm. mais ki nga xamante ne dafa war liggéey ci événement bi kooku promoteur bi mooy dem vers yenn chaînes yi wala yenn télévision yi ne leen dama bëggoon événement bi def may def ngeen gunge a ci promotion événement bi d'accord chaîne bi na la ok léegi naka nga bëgg ñu liggéeyee ñu ne bon dama bëggoon ay spot yu may def pour événement bi ngeen ma koy jàllaleel chaîne bi na la ok spot koy jàll mais en ñun lan la ñuy am mhm. ci bi ak lan nga ñuy préparer ce que mën nga ñu jël en ci billet hôtel avion per loolu benn affaire la léegi sponsor yi nga xamante dañuy dugg après ci biir événement bi bu spot bi di jàll day gis ñu ne sponsor leader tel tel produit wala sponsor bi moo gunge événement bi sponsor boobu noonu ñaata lay joxe ñun pourcentage bi lan lañ ci am ñun en tant que maison de presse wala en tant que télévision. Mm-hmm. kooku am na droit ne man nii laa bëgg ñu liggéeyee. parce que yaa ñëw vers man pour ma gunge sa événement comme ni ñu def ak 2STV def ko ak euh, RTS ñoom dañu ne ñoom li ñu bëggoon mooy ñu jox leen exclusivité bi. Mhm. bi ñu fa demee waxtaan Pape Alé dafa ne li ngeen indi nii man soxla naa ko RTS soxla na ko. parce que actuellement damay doog a toog ci télévision bi nekk DG war a defaraat programme surtout surtout côté culturel bi donc man bëgg naa mais léegi dama leen di boole commercial bi ak ki yor programme ngeen xool nag ngeen di liggéey ci contrat bi. Mhm. contrat bi ñu luyee woon mooy RTS dafay teg ay spot RTS day invité Sidi RTS dafay gunge Sidy ci événement bi jël ko avant pendant ak après événement pare exclusivité bi nga xamante mooy vidéo bi nga xamante ne monté nañ ko pare RTS da koy diffuser. Mhm. bi ñu demee ci même chose dafa ne Birane jël leen affaire bi en charge lépp luy spot lépp luy émission invité leen Sidy parce que doomu Sénégal te ñun ñi nekk ci kaw yor ay ay de télévision ñu ñëw mën a jàppale événement yi mel nii. donc loolu moo nekk ci li nga xam mooy jëm ci wàllu presse bi. Mhm. maintenant ñi nga xamante ne ñoom. bëgg nañu affaire bi après gis nañ leen parce que man dama doon toog ma ma ma ma ma woo gars yi leen mais ñun ñu ngi bëgg a dem seeti tel artiste pour yóbbul ko lettre am ñan ñoo disponible pour ñëw. Mhm. ñi disponible ñoo doon ñëw ah. Mara boo gisee tout au début y avait euh, B Pro Média euh, surtout sëñ Mbacke Diop Mars Dakar Live Alburax euh, Info amoon dafa naa presque ay sept yu ñu doon topp. Mhm. maintenant set yooyu nga xam ne am benn instant après xëy na peut-être seen temps moo leen ko mayru woon ñenn ñi mënatuñu woon ñëw ñi ci mu doon mujj gis mooy sëñ Mbacke euh, Dakar Live Univers Info ak euh, defe naa carte après ñoo mujj topp affaire bi. d'accord ak Fifita. Mhm. Ah, bi nga xamante si moom mu ngi doon jàpp ci communication ak euh, Zeyna Bamba leader 221. donc bëri na ay chaînes yoo xamante ne finalement ñoom xëy na ñoom ñoo ne woon projet bi noonu nañ ci sonn rek. Mhm. après lu ci am jël. d'accord mais daf ci am ñoo xamante ne xëy na seen jot moo leen ko mayul woon mais képp koo xamante ne am nga événement presse bi warul xaar ñu naan ko kaay ki nga xam mooy promoteur mooy xool ne man sentir naa sans limite Seneweb lim ay kii ni dama bëgg dem ñu nekk suñu ay partenaire ñu gunge ñu ci événement bi mais ñi nga xamante ne nag ñoom dañu libre ñoom bu ñu bëggee tey matière dañuy dem outil matière bi ma woowee waa Sunugal 24 euh, di jë moomo sax moomoo moomoo ne ma mais nu muy demee affaire bi ma ne ko tey pour man lii gagnant gañaa la. Mhm. Zénith événement bu mag la Sunugal 24 tey mun na ñëw bokk ci partenaires yi gunge événement bi dina am matière maintenant léegi li nga bëgg xam mooy naka la ñuy def pour ngeen dem. si dama passe après seen patron ñu waxtaan mais après amul suite parce que dama ne ko lépp loo gis aussi bu mu nekk lu amateur nañ ko def sur papier. pour ëllëg. Mhm. moo tax ñi nga gis ñëpp dañ leen signal ay convention yoo xam ñoom ñooy accompagner événement bi dañ ne képp ku bëgg ñëwal. man maa doon wax yéen man leen képp koo xamante ne bëgg nga man boo moo dama lay euh, ramener dama lay dama lay yóbbu directement ci Mamadou Fall Fall après na la bon document bi lañ soxla pour suba bu ñu lay defal invitation pour nga ñëw couvrir événement bi invitation bi ñu lay defal mooy boo xam ne dafa concerné presse bi day ñëw couvrir événement bi ba ci man mi d'accord man pour ma pour ma pour ma déposer sama visa dañ ma defaral. DJ Yves présentateur à la DTV actuelle GTV pour la couverture de l'événement du juin. Mhm. loolu la ma yónnee. oui sunu sunu directeur de programme approuvé. ma dugal samay samay papier. d'accord ci ah. mhm. mhm. dama de dama ko jaarale par hiérarchiquement ci li nga xamante ne moom moo di fi ma war a jaar te bi ma ko defee aussi après ciw ma ko. d'accord parce que lu ci mën a xew suba dinañ ne au moins que yëgaloon nañu ko. voilà ça marche alors ñu ñëw ci. ci zénith bi ci jour bi mhm. Mhm. alors bien avant sax répétition bi gis nañu si il a pleuré itam pour euh, Matar Diop Soubatel ci balance bi lan moo xewoon foofu ba jooy am fa waaw euh, foofu moom boo bëggee dégg dëgg ñëpp a jooy xëy bu Matar a feeñ mais ñi fa jooy bëri na hmm. euh, parce que c'est venu naturellement dama jàpp ne artiste bi dafa am bi mu taxee ci kaw scène bi ba mu wóor ko ne moom instant bi jot na quoi. Mhm. maanaam egsi nañ ci bis bi. xelam dafa dem ci deux mille vingt bi muy toog ci salon Matar Diop suba teel moom ak Jékki ak Omoro di waxtaan Matar ne ko dañu bëggoon nga jàppale ñu liggéey ak yow signé contrat Matar ne leen ñaar naa leen ko wax ku ragal doo ànd ak man ku ñemewul doo ànd ak man c'est-à-dire bu dee ñeme nga wax bi lii la ko wax da ko ne ñeme nga. si na ko ñeme mu ne ko ñeme nga ñetti yoon la ko laaj si na ko ñeme naa mu ne ko ñëw ñu liggéey lii man dinaa la ko wax xaw ma lu yàlla def nag ci diggante bi dinaa la génneel album dinaa la yóbbu Zénith bu ñu fa jegee dinaa la yóbbu Bercy bu ñu jógee Bercy ainsi de suite bu fekkee pare nga contrat mën nañ ko signé léegi léegi léegi balaa ngeen di jóg ci li ma jàpp. kon Sidi Diop. bi mu ne ba taxaw ci kaw seen zénith xelam dafa ñëwaat ci bi ñu toogee ci salon Matar di waxtaan ak Matar. Mm-hmm. beneen bi mooy Matar aussi li ma jàpp ci li nga xamante ne xëy na moo ko jooy la mooy bi ko Sidi di di wax li ma waxoon def nga ko tey yaa ma ne woon dinaa la génneel album def nga ko. Mm-hmm. yaa ma ne woon dinaa la yóbbu zénith def nga ko. jooba juba naa nga wax ay wax Matar aussi xam naa ci xelam mooy. moom li mu amoon yéene yàlla mottali na yéeneem ci bis bi. Mm-hmm. te ñëpp dañ ne woon mënul ne. ñëpp ne woon du am ñii ne woon seen ànd du yàgg ñoom ñaar. parce que Sénégal ba ci Sonko Jomaay actuellement Sénégalais mooy léegi ñu xuloo. Mhm. seen ànd bi du dem. loolu Sénégal moo moo moo moo ni mel mais pour man ci li ma jàpp loolu moo tax Matar yëg bi Siri di way mu am lu mu fàttaliku moom tamit xëy na jooy ñu ñun aussi voilà ñu ñu am xol bu tooy. Mhm. donc euh, loolu la. mais du du nax kii jooy. ah oui bien sûr tout le monde pleurait quand ah ñëpp jooy mbaa ca toog fee di jooy. <laughs> Mhm. xam nga gars yi ñii dem làqatu fële. waaw donc c' était c' est tellement émouvant quand même c' parce que Matar nekk na nit koo xamante wax dëgg yàlla euh, jàmbaar la. Mhm. Matar Matar euh, c' est booy wax ci moom sax bu yàggee sax mun nga ko catu. Mm. waaw mais jàmbaar la boo xamante ne ñun ñu ko xam avant Sidi Diop. parce que Matar bi ma koy xam depuis 2007 2008 laa ko xam ñu yàgg seq ay liggéey ma gis fi mu commencé ba fi mu agsi tey et c'était pas évident parce que Sénégal ñu bëri dañu doon wax ne fi benn label mënu fa évoluer bu dul Présar. ñëpp loolu lañ doon wax boo demul Présar doo jàll boo demul Présar sa dara du baax boo demul Présar fi nga bëgg dem doo fa dem moom mu nekkoon foofu doon fa liggéey temps jololi yoroon lu bëri ci liggéeyu jololi mu dem ba loo xamante ne. fi mu koy tegee boobu sénégalais soxla nañ ko rawatina les jeunes artistes. Mhm. mooy label boo xamante ne dina tax ñi doon wax ne boo demul fee du baax noonu nañ dem wéeru ju fële mu ñëw nekk label boo xamante ne pour la nouvelle génération la boo xoolee awul artiste bu mag. Mhm. moom mooy manager Pape Diouf loolu moom ak Pape Diouf la Pape Diouf groupe la loolu. Mhm. mais suba teel avec la nouvelle génération boo xoolee ñi fa nekk ñëpp ay xale la ñu. mu ci def xaalisam. di ci def dooleem te nga xam ne kii lim ciy sonn di ko ci def nii jotagu ko ba tey. mais mu ngi insister rek. mu ngi insister parce que yombul te xam nañ ne fi mu jëlee euh, musique bi ak si mu indee label bi fekk na musique sénégalaise pour nga génnee album jaay ko c'est tout à fait un problème. Mm-hmm. donc loolu bokk na ci li nga xamante ne man jàpp naa ne loolu moo taxoon. Euh, vraiment mu voilà émotion bi ñëw ci moom mais encore une fois na ko nañ ko ñaanal parce que mu ngi rendre service musique sénégalaise benn. Mhm. la culture sénégalaise te yamul rek ci artiste waykat yi parce que mu ngi am yeneen liggéeyoo mu ngi koy def ci suuf te incha allah bés bu waree feeñ dina feeñ incha allah. d' accord alors DJ moom lañu dalal tey pour euh, mhm. ñu dé ñu def li nga xam ne mooy décrypte. Euh, zénith bi passé mhm. si di war a yéeg. yaa ngi woon ci suuf wala yaa ngi woon ci kaw. waaw man bi ma ñëwee euh, Zénith déjà man maa ngi fi quitté vendredi ci guddi. egg 9h ci suba dem hôtel teg sama bagage. ndékki ci hôtel bi enchaîné dem Zénith donc nelaw ma. Mhm. dama enchaîné dama ñëw Matar il faut ñu dem léegi léegi ci salle bi ñu dem xool balance bi parce que dañu war a balance à 14h30 il faut ñu balance. ñu dem bi ñu demee ma jël sama bagage bàyyi ci hôtel bi dem ci ci ci salle bi. Mhm. commencé dugg di xool. xam nga fal emplacement yi gars yi fan la ñu war a taxaw sécurité bi fan la ñu war a taxaw musiciens yi seen balance euh, naka la ñuy defee balance bi branchement yeeg yooyu. Mhm. liggéeyu dix personnes. parce que maa ngi woon ci ci régler entrée porte bi artistes yi waroon dugg mooy porte entrée artiste pour ñu bañ leen téye parce que daf ca may badge yoo xamante ni artistes yi dañ ko yéex a jot il a lu ñu ñëw ba ci ñu jox leen ko yenn invité yi nga xamante ne aussi dañu waroon ñëw ci Zénith bi ma nekk ci backstage bi lijjanti musiciens yi. li nga xamante ne waroon nañ ko mooy seen yére yi nga xam ne Assane moo ko waroon indi pour musiciens yi teer jox seen ay yére ñu mën a solu ñi nga xamante ne aussi ñoo nekkoon artistes invités yi seen loge Matar ne ma loge Viviane il faut nga xool noo ko gérer Pape Diouf Sidi ak yeneen artistes yi ma yéeg dem di xool di régler loge ku nekk boo ñëwee sa code bi ñoo la ko war a jox code bi nga ubbee sa loge moo fa jógee aussi ma wàccaat demaat ci porte bi ci ginnaaw parce que des fois nit wool na la ñëw naa mais fan laay jaar nga obligé dem fekk fa mu ne ne ko kaay jaaral fii donc mu nekk liggéey boo xamante ne nekkoon liggéey bu yomb mais nit boo bëggee dara am si passion. Mm-hmm. day yomb ci yow. ñu war a démarrer. Mhm. présentation bi man maa waroon présenter événement bi. mais dama ne comme am naa fa ay nawle animateur yoo xamante ni ñëw nañu déjà y avait Sidat y avait Kheucha et aussi des présentateurs yoo xamante ñu ngi woon euh, foofu HD24 muy euh, DJ Al. Mhm. y avait aussi Aliou Ba Mañaxtu Mantala Jolie c'est un présentateur de cérémonie mu ne bëggoon naa ñëw participer ci événement man nag événement bi ñëpp ko moom. Mhm. man mënumaa ñëw nekk di coordonner. di gérer backstage bi ci ginnaaw di gérer artistes yi bëgg présenter mënul nekk léegi ma ne grand Moussa bi yoroon régie bi régisseur bi ma ne ko jëlal micro bi nga jox ko Sidaat mu démarrer événement bi. Mhm. man bu di waree yéeg. man dinaa ñoo def sama participation wàccaat parce que dama war a gérer encore ginnaaw seen backstage bi pour xool déjà Sidi yéegam morceau yi mu war a joué ñaata morceau la war a joué bu waree summeeku il faut ñu taxañ ko yóbbu ko mu dem summeeku gaaw le temps que ñuy ñuy def pause après Sidaat démarré bi Sidaat démarré. ba Sidi war a yéeg may koro nekk artiste bi kii moo war a yéeg Pagaye mbay dem jëli Pagaye dem jëli Pendo ne ko kaay yéeg sa heure jot na Tange aussi maa ngi ko ci remercier walla parce que moom moo yoroon liste artistes yi waroon yéeg donc moo doon coordonné man Tange ak animateur bi muy Sidaat bi ñu waree yéeg ñoom ñëpp yéeg nañu ba mu des Sidi. Mhm. ci laa ne ok léegi nag man xaaral kon ma dem solu ji yéex naa solu sax ci laa dem après fekk fekk ci diggante bi daw naa hôtel bi jëli sama valise indi ko bàyyi ko pour su ma waree solo nga xam ne ma delluwaat hôtel ba ma solo bi ma solo après ñëw ba Siraat présenté ba mu des Sidi Diop ma xam ne léegi comme Sidi rek a fi des ma léegi nag après mun naa yéeg de sama participation ci laa yéeg après man Kheucha aussi ñëw fekk ma ci seen bi ma jiital ko na ko na ko defal show mu def show Siraat après man ma annoncé Sidi bi ma ko joxee micro bi ci laa wàccaat nekkaat ci liggéey bi donc bi Sidi di yéeg boobu man maa ngi ci kaw seen bi. d'accord lan moo waaw pause bi euh, lu bees la biir Zénith quand même. Hmm. il faut la rappeler parce que dafa bokk ci contrat bi boo xoolee ñoom intract lañ bind intract intract mooy dina benn moment boo xamante ne boo posé parce que boo xoolee Zénith 18 lañ lay ubbil porte yi mu jëm 23 heures 30 maanaam 23 heures 30 pile. dañuy fay lamp yi. c'est-à-dire yaa moom 18 ba 23 heures loo fa def yaa xam. boo la neexee nga commencé commencé 18h di woy ba 23h30. Mhm. bu la neexee nga bàyyi ba 22h nga yéeg bu la neexee nga bàyyi ba yéeg jouer 30 minutes mais bu ñu la nee ouverture des portes 18h yaa moom ba 23 ci diggante bi. dafa am lu bees loo xamante ne ñoom waa Zénith ñoo ko exiger mooy que bu artiste bi joué pendant une heure trente minutes dafay def benn pose vingt minutes pause vingt minutes dafay permettre tey baaru Zénith bi mun a fonctionner. Mhm. nit ñi ñu bëgg dem naan dem daan ñu bëgg dem naan ndox ñi bëgg a consommer ñi bëgg dem def li ñu def ñi bëgg peut-être génn tux seen benn cigarette tuggaat da leen koy permettre donc loolu mooy indi pause bi e malheureusement mhm. euh, on n'a pas annoncé ça avant pour sénégalais yi mhm. comprendre mhm. mais bon loo gis rek parce que xam nga événement bu njëkk il faut que moom ay ay yoo xam daf ci am ci ci diggante bi ay kuwaak mënul ñàkk képp ku mës a def sa premier événement mënoo ne lépp jaar na yoon <laughs> il faut que ay failles yoo dafay am te failles dafay permettre tey boo demaatee da ngay xam fi ngay jaar. Mm-hmm. et li nga xamante ne mooy pause bi dafa tombeek événement aussi di Diop mais ci contrat bi la bokk léegi dafay permettre léegi bu fekk da nga waroon jeexal vingt trois trente dañ lay may ba zéro heure moo tax pour la première fois un artiste sénégalais joué Zénith joué morceau yi mu bëggoon joué artiste invité yëpp yéeg woy ñëpp amul kenn ku dem Zénith ñëw na finalement yéegu ma wala yéegooñu ma. Mm-hmm. ñii playback playback nañu ñii bëf bëf nañu Sidy Diop way na ba pare. ba musique bi ne pan mu taxaw di remercier c'est la première fois c'est-à-dire daaw daaw remercier. Mm. parce que dañ lay dagg. donc moom am na chance su quand mm-hmm. ak liggéey bi ñu la def ci ginnaaw aussi. parce que jaabante ci kaw seen boobu noonu ma doon def noonu c'était pour gérer le temps pour que mu nekk ci timingu morceau yi. Mm-hmm. nga xamante ne du ko def comme baaramundi war a tëgg morceau war mu war a yem 7 minutes nga koy def vingt minutes. Zénith boo xamee ni muy fonctionné doo may artiste bi jàmm ci kaw seen mhm. tout le temps yaa ngi yaa ngi koy dee wala yaa ngi wax ak moom ci tool bi di ko wax ne ko gérer sa temps. d'accord je pense que kon li li Sénégalais yi comprendre lu toll moom mooy loolu. ndax gis nañu à chaque fois. Mhm. vous wala Tange wala keneen ak keneen. Ah. à chaque fois dafay ñëw ci nopp Sidi Diop. voilà di am lu mu ko dee. peut-être nag. li Sénégal yi doon wax maanaam les téléspectateurs moom mooy dañoo war na bàyyi Sidi mu wéy mu mm-hmm. firi alors que mm-hmm. ñoom comprendre luñu exactement yëf yi naka la waroon na demee lii lii mooy problème c'est l'occasion nga leeral ko lii parce que takkul tólki mm-hmm. donc doo mën a wax ak moom parce que c'était pas préparé léegi il faut moom soit muy tourné di la xool ngay def ay signes naan ko nii te artiste bu nekk ci ko seen concentré du tourné ci ginnaaw du xool c'est très rare surtout j'ai un jeune artiste boo xamante ne pour la première fois nga yéeg ci scène bu mel nii déjà tu es balaa ngay yéeg gars yi ci suuf buure nañ ko ñu ngi koy ñu ngi koy ñu ngi koy galvaniser xam nga yéegal toj fii tey la tey la tey nangam nangam ci artiste boo ma xale la mu war a ci kaw scène ba pare war a gérer aussi timing bi war a gérer aussi ñiy bëf donc day diis si moom. Mhm. moo tax il a fallu ku mel ni man ku mel ni Tange di daw tout le temps ñëw xëcc ko mu ñëw nga ne ko lii mu delluwaat parce que bu ñu ko deful woon. dañuy jékki-jékki rek xool ñu fay son bi. Mhm. parce que am na benn moment tubaab bi ki doon gérer régie Zénith bi mu ngi ñëw ci man mais monsieur mais il faut faire vite mais le temps. Mhm. mu ngi imposer moom quoi. Mhm. te ñoom lu ñu la wax dëgg la. ñoom moom seen temps. ñoo moom seen contrat donc loolu bokk na ci li nga xamante ne wax dëgg yàlla. moo moo waral lool noonu. pause bi li ma expliqué loolu la woon ci contrat bi la bokk. mais aussi li nga xamante ne moom mooy jaabante bi ñoo jaaban ci kaw système di wax artiste bi c'était pour aussi le temps et puis mhm. di ko fàttali aussi ñi war a bëf mhm. que ñu ngi ci ginnaaw mu sóoraale temps bi pour ñu mën a ñëw ñu koy annoncé kii war a ñëw pour moom mu bañ a ñëw di di xool kan mooy ñëw mais fa mu toog mu annoncé ne yaa mon frère wala mon ñu ngi koy woo mu ñëw ci scène bi. Mhm. donc loolu moo waraloon jaabante bi yooyu. leer na waay d'accord. <laughs> Sénégalais duñu bàyyi. oui cest mais mais mais xam nga sénégalais. lii nii parce que aussi looleen waxul xamuñu ko. non donc c'est normal ñu commenter commentaire moom. lu commentaire est libre les faits sont mhm. li ñu doon def fee la. Mhm. mais kiy commenter mënoo fexe ba du commenter li mu gis moom li mu gis rek lay wax. loolu je suis d'accord. parce que nit aussi mënoo ko tënk na ko damay def mais yow lii rek nga war a gis waroo gis leneen. Mhm. loolu loolu du démocratie. scène yi nga xamante ne mu ngi am ci àdduna bi bay artistes Sénégal di ko def boo xoolee ñaar ñi ko ci réussir à cent pour cent ñaari artistes la scène bi correct Youssou Ndour ak Coumba Gawlo mhm. mais xoolee yeneen scène yëpp dina dina am ay ay ay des fois nga gis ku ku traversé ñëw wax artiste delluwaat. peut-être ñooñu seen expérience moo leen may loolu mais tey bu si di waraatee dem tey beneen seen bu mel ni tey Bercy incha allah mais dañuy gis changement waaw loolu dañ koy régler après. mais c'était normal première événement la événement bu njëkk la xale la ñu ko gunge aussi ñi ci bëri xëy na amuñu expérience. Mm-hmm. pour gérer artiste événement bu mel noonu moo tax mais. vraiment ñu ngi ñu ngi ñu ngi ñu ngi jéggaluwaat sénégalais ci loolu parce que nit aussi bu fekkee da nga koo wala nga seetaan loo ko par force xaar loo ko événement ba ci jour bi mu gis ci loo xamante ne dérangé na ko ci c'est normal mu wax ci et puis voilà prochaine fois ñu ñu xoolaat ko. tout à fait alors. ñu bàyyi la nga tàggoo ak internet yi nga xam ne ñoo lay seetaan ci Sans Limites TV waaye mm-hmm. tàggoo bi moom mooy bàyyi mooy dëgg foo mm-hmm. teg loolu bàyyi mooy lépp waaw mooy doktooru xol yi mooy jaww ji mooy suuf si mooy ndox mi mooy ngelaw li mooy làmmiñ yi picc yi bu ñu sabee sax la ñuy wax bu fekkee am nga dégg-dégg am nga maxarifa bu baax bàyyi mooy lépp mooy dëgg. bàyyi lu mu la li ma defal bëri na de. Hmm. tax na ma xam man maay kan. Hmm. tax na ma xam yàlla te xam sa bopp mooy xam yàlla. Hmm. bàyyi fekk na ma ci ay situation yoo xamante ne munoon na doy waar mu wuy si ma régler ma sama problème dem yoonam benn moo ci mujj bi sama visa yéexee génn. parce que man dama doon renouveler maa woon ci sama deux ans laa jeexal am naa ñaari yoon deux ans am naa quarante cinq jours am naa quatre jours am naa sept jours donc bu ma waree renouveler dafa war a gaaw warul taxaw ambassade. Mhm. ma dugal ko une semaine avant toog di xaar ba mercredi jotuma message ba jeudi jotuma message ba vendredi ma ne bon naa yeewu rek dem xool peut-être xëy na problème réseau technique seen message yi xëy na tak ci jaww ji ko on di affaire technique la. ma dem bi ma demee ànd ak sëñ Mbàkke ñu dem xool ñu ne noonu jotagul jotaguñu passeport bi ñëwagul VSF ñu toog maag sëñ Mbàkke naan café taxaw waxtaan en face di xaaraale peut-être 14 heures jot xëy nañu jot message balaa boobu avant 14 heures ma jékki-jékki ma ne ko sëñ Mbàkke mu ne xam nga la def boobu nag xaal bi ñëw na. Mm-hmm. ma ne ko damay dem sama kër tëdd dallu ji ma bàyyi ko ki nga xamante ne moom laa yaakaar moom laa gëm muy bàyyi moom mu situation bi. sëñ Mbacke ne ma ah waaw kon baax na léegi kon nañ déggante ma taal sama oto dew ma directement sama kër am lu ma noo régler ji ville ma dem ville nekk di jaabante ji am lu may régler ville ba 15 heures 30 ma jékki-jékki jot message man génne woon naa sama xel dama naa dem tëddi nelaw quoi nekk ci leneen bu ñëwee baax na bu ñëwul baax na mais ki ma ko dénk xam naa dina régler situation bi. 15 heures ma jot message ñu ne ma sa sa passeport mu ngi. dem euh, VSF mu nga dem récupérer ko foofu ma ñëw bi ma toogee xaar gars yi ku ne di xaar ñu nekk di wax ñu naan jotagoo message ñu naan jotagoo mel leen man ki ma gëm xam naa dina régler sama problème. Mhm. waaw te toog fële di joxe moom mooy sama jëmm ji génnee visa bi. ni min waaw ma toog jékki-jékki ñu ñu ñu envoyé ma message. Mhm. dama passeport bi agsi na. man nga ko retirer quoi ma dem jël sama sama visa ab ma sant ko ki ma njëkk a woo bi ma koy laa ma maay sant baay parce que saa ma ko soxlaa mu ñëw taxaw donc kooku lu mu la defal mooy loolu la ma defal man mii ak yeneen mhm. fekk na ma al fekk na ma Malpensa Italie ma war a voyager aw ma passe ñu ne ma foog nga dem uti passe sanitaire temps bi waru woon mat ci diggante bi may dem jëli vol bi miy tëj avion bi bi ma demee affaire yi compliqué man damay bàyyi mu dëgër na ma doo ko woo du ma ko woo waaye ba mu dëgër affaire compliqué maanaam laaxatu ci ginnaaw def ñetti salaatu fatiha ne ko bu fekkee yow yaay kee toog nekk ci enregistrement bi fii yaay waa ji taxaw ci entrée bii nii yaay sama jëmm ji nii sama passe sanitaire bi dama ko soxla mu war a ñibbi Sénégal fa laay fanaani deux secondes trois ma jot passe sanitaire bi ki ma taxawal ba léegi bët boobu la may xoolee mu ne ma lii mooy gëm-gëm ma ne ki ñu am dañ koo xam eh. ku ko xamul lay jaaxal waaye ki ñun xam nañ ko waaw merci merci beaucoup mooy lépp. <laughs> jërëjëf Yves kontaan nañu bu baax. ça a été vraiment plaisir. ñu ñu am la nga defar ñu li nga xam ne moom mooy décrypte. Zénith mhm. euh, bii passé. Mhm. nag damay xel dafay ne ci Bercy à chaque fois. waaw mais yéene la ci yoon bi quoi yéene la waay yéene la comme ni ko frère am waali defee noonu la koy defee. incha allah dem Zénith boo fa jugee dem Bercy. d' accord parce la rek. Mhm. waaw salle dong la. d' merci. kontaan naa jërëjëf Albourakh di gërëm aussi waa Salim yëpp. fii moom sama kër la parce que bëri naa fi ay frères ak ay sœurs yoo xamante ñu ngi fi. Mhm. donc maa ngi leen di ziar ak aussi kër gi tamit da ko wax ne macha allah liggéey bi gis nañu fi mu tàmbalee ak fi mu mujjee tey. parce que man mhm. waroon naa bokk ci ñi nga xamante ne ñoo waroon démarrer sans limite. te dañ mhm. koy teg bu njëkk ba. boobu benn caméra la woon benn micro ak benn machine. mu yànqoo ba. jaajëf. <laughs> merci ñu koy gërëm bu baax ça a été vraiment plaisir ñu am ko. ci euh, plateau bi ñu ngi nii bu baax itam membre suba teel gi yëpp. ñu leen di jaajëfal euh, mm-hmm. jiital ci Matar Diop suba teel mm-hmm. ak ña nekk ñëpp ñu ngi leen di jaajëfal ci lii nga xam ne indil nañu ko ndam lañu indil. quand même wax nag wax ji bëri woon na coow li ku nekk di ci wax. Mm-hmm. alors tey yëf yi jeex na. on passe à autre chose. ñu koy gërëm bu baax merci aussi à Assane Graphique.